sax de dangaa déggati dégg sa dil toj rek moo tax man daal xaw ma dama déggati dégg sunu dil toj xaw ma leneen waaye yow moom foog ma dëpp la ndax bu la yóbboo ci yaay dañ leen sonal dong ñun dong ñoo la àttan gone goo xam ne daal lu ay mag wax rek mu wut lum ca teg man daal su ma doonee gone goo xamante ne lu mag wax ma teg ci daraat am na mag ñoo xam ne moom gone leen gën ci kër ndax lu gone for ñu sàkkal ko pexe. li may wax yow mii di ci jinne ya dong nga waroon a dëkk ndax ñoom nga méritoon yow mii da ca kondoroŋ ya dong nga waroon a dëkk ndax ñoom nga méritool maam maam ñibbisi naa de xamoon nga ne dinaa ñëw xamoon ngeen ne bu ngeen ma bëggee yóbbu lekk xaalis bedd sotti ñëw naa de ku yoreel nit lu tal ne mbakkanu caaf doo dugg àjjana te fayoo ko de waxantuma laa nag sa biir fees dell ak riba ko biir tollu nii nii nii nii nii Agriba jullit dafay jëfu jullit di wax ko yarke sa doom lu bon ci moom ngay tere ko comme defu leen loolu kay ma walbatiku di ko def nag bàyyi leen ma fi ndax yàlla dimbali leen jarul nga may sànni ak dëgg dong laa leen di wax comme nag yéenaa leen a yee ba sonn nanguwu leen a yeewu baabu tàggu na leen moo ngi dem ba beneen